loolu gis nañu sunu gouvernement nag jël nañu ay matukaay ba loolu bañ a am walla bu amee du bari mais du tax du tax yéen ñi nga xam ne dangeen nekk ci secteur u pêche fii ak ñuy tàmbali production bi mu doon loo xam ne xéewal la doon loo xam ni it dina baax ci Ndar ndax li ci njëkk a feeñ ñu war koo njëkk a tàmbali fii la ko yàlla feeñal uh-huh. mooy fi ngeen di jaar di dem Mauritanie yàlla def lu ko neex feeñale ko foofu te fi ñu dagg frontière bi dafa mel ni yàlla daf ko tracé génn wàll gi mu féetale ko boor boobu génn wàll gi mu féetale ko boor bi te lépp nag di benn teen rek ci suuf kon amuñ beneen pexee lu dul ànd liggéey ko waaye sunu gouvernement bu soobee yàlla pêcheurs yi li ci seen àq ak li ngeen xam ni bu loolu exploitation bi tàmbalee mën ngeen ko ñàkk mën naa leen wax fii solennellement gouvernement Macky Sall bàyyi na ci xel te yéene